yooyu li ci gën a mooy partem bi parce que moo ko tax mu am li mu am jàng na intellectuel la bind na truc mais son parti est la l'élément le plus important de son œuvre dama bëgg yow ngay doomam bu góor nga taxaw parti boobu sa alal sa xam-xam say xarit say réseau na ko def ci parti bi pour que parti boobu taxaw parce que mu daanu sa gàcce la gàcce sa papa la te bu ko nangu man nag moom ak yàlla kese loolu laa gëm mu ne lan mu ne ma tax si je le engagé wu te bu mu wu ba léegi ci la nekk boobu léegi ci la nekk bougéwul ci loolu pourtant il a été là il n'a pas été secrétaire général national naa bañ a d'accord ak Karim dans sa façon de fonctionner mën naa bañ a d'accord ak Nafi mën naa bañ a d'accord ak keneen ak keneen mais ñoom ñëpp ay PDS dañu te ñun ñoo bëgg ñoo bëgg Karim mu nekk suñu candidat ñoo ko tànn man je l'ai réaffirmé man déggoo ma 2013 laa dem ma lay wax bu baax nga dégg li ma 2013 laa dem Versailles man ak Ablaye wadd ak Assane Wade ma ne ko monsieur président nañ def Karim suñu candidat Assane Wade da nga may dégg man Tafsir maa ko def. te bi ma koy def dama jàppoon ni loolu moo baax te ba léegi jàpp naa loolu moo baax. boobu Ani Karim mi ngi ci kaso bi. boobu Karim duggagul kaso 2013 daal wax boobu tu au tout au début ñu ngi wax yooyu pour mu dugg kaso yooyu ma dem ni ko na nekk candidat bi man maa dem man man Tafsir pour vous dire que li nit ñi di wax li nit ñi di wax parfois dafay nekk loo xamante ni dafay xaw a compliqué est-ce que comprendre nga donc PDS ñun ñoo bëgg Karim Wade nekk suñu candidat. d'accord ñun ñoo ko choisir pour mu nekk suñu candidat. d'accord alors kon nag d'accord leen ni problème bu parti bi am yéen a ko am yéen a ko indil seen bopp.